ma mosa wax loolu cent personnes mën nañu cent personnes bañ Zocash right mais Zocash mooy xam boppam xam nu muy doxee xam nu mu war a doxalee hmm. boo bëggee mucc yow yow mos nga vivre lu mel noonu jo ci sa si sa carrière mos nga vivre euh, benn menace bu nga xamante ni euh, daf lay wóor ni lii bu bu ci jugul mën na fi muy mujj mën na doy waar. man de sama waaj. Hmm. man boo nee ma Zoka dama lay rey. Hmm. barki Seydina Mohamed laa la waxal nii de. Hmm. xam nga la laa la si tagal. bu dee mën nga rey rek soo ma gisee rey ma. man nga may mélange nii nga nekk Sénégal ma nekk Sénégal. dootu bu ma la bu ma la créé lay maanaam dootoo mélange te yow. xam nga dafa am ñoo xamante ne danaa la yow dama lay rey ngay nekk foofu di tiit tiitlu eh yàlla kase man boo nee ma Zoka dama lay rey dama naan laa xolal boo ma gisee rek defal te xolal dinaa préparer de te dinaa la teg si mm-hmm. yoon balaa dara ndax yoon dafa am man daa ma mélangé ma lay bàyyi ngay dox noonu di bonde fi nga naan ma dama lay rey xolal damay enregistré audio bi dem teg ci yoon mm-hmm. te dañ lay tëj ba pare jël avocat ba pare dina préparer Nak, ndax man bala nga may defal bagage ma defal la bagage. d'accord c'est ça. d'accord légui légui donc donc donc milieu bi finalement euh, li li ci nit ñi di di di di di xalat finalement c'est c'est avéré hein dafa dangereux hein ben côté wala. milieu bi dangereux na ba fu dangereux yam ndax képp ku nekk ci hmm muy fecci muy kat bi barki mm-hmm. alquran am na ñoo xamante ne buñ la gisee yaa dox yow kase mu ne la bettee paako rey la bu dee tuloo oh. taxu nga moo ñu bëri dañuy tul paaka du leen romb oh. ci yàlla artiste te loolu voilà mm-hmm. parce que boo mm-hmm. commencé am tour sax waxuma la artiste yow commencé am tour rek wala nga commencé am wéccit bobu non mo lay jural ay non parce que ñenn dañuy bëgg di xéewalu ci wéccit bi nga yor légui nak buñ ci amul dañuy jalo hmm. kon kon lolo tax sank nga wax jalousie quoi nit dalay bañ ta do la ko wax deug la nit mën na wax ak yow nga tontu ko tontu bu ko neexul mu don sa noon si saa hmm, hmm ndax tontu bobu nga ko tontu neexuko right Zo lu tax mu tontu mo ni ki su ko gisee sax dama koy defal bagage nga gis zokaaj defal ko bagage lolou iya yep day am waye man kumay may defal bagage dang may bette de man bal nga may defal bagage ma defal la bagage ok malo loolu d'accord legui léegi donc donc cela veut dire que ni milieu le bu nga xamanteni comme comme ay jeun la dundé quoi ku ci jekku sa morom rek dang koy chop waaw ah, loolu la loolu kese la moo tax artistes yi bu ñu demee bay def bayra hmm. dañuy def ay muslaay hmm. bayra bi ñuy def mooy lan doomu aadama yi bëgg leen waaye du ñu def lu yàqu li yàqu def loo xam te day aar seen yaram te ku dul artiste sax mën sa bopp wut ay muslaay yoo xamante ne mooy loolu parce que ñaata nombre de personnes ñoo lay vu hmm. ñoo lay tiim en publiquement boo dee par exemple barke alxuraan do dund dëwan réew bi nag da ngay jug sa bopp boo jugul sa bopp gars yi jug la yow nit da gis bañ la ni dem hmm. sëriñ fay ko koo xamante ne amul lu mu lekk amul lu mu naan day dem sëriñcu la ci saasi ok na Sénégal gis zocage bañ ko yóbbu ko sëriñ eh liggéeyal ma zocage léegi nag boo demee ba xam yooyu noonu bu dee nit nga yow da ngay préparer ci sa bopp. dafa lo xamanteni ni ku la liggéey day neewi ba mu dé parce que pour lan ngay yobbu sama tour ci sëriñ. ak man la la def ko may yobbu si sëriñ. Mm-hmm. mais da ngay gis Sénégal ko xamanteni amu lu mu lek amu lu mu nan ba paré di jël alalam yobbu ko ci sëriñ nan diw euh, liggéeyal ma hmm mais pour lan lolu ak lu ko jar si adina e eh, diw waru fi amé mais yàlla moo xam la moo tax mu may ñi mayul ñee d'accord bu nit doon am kenn du am bu nit doon may kenn du am parce que nit rek mooy soxoree moroomu nitam right dara jaru ko si àddina d'accord léegi léegi am na fenn fu ma bëgg aussi nga ñu waxtaan ci bu fekkente ne tamit permettre nga ma ko ah mhm. moom mooy moom mooy yow showbiz bi sénégalais yi ko ŋànk téye ko yow euh, est-ce que am na maanaam opinion boo ci am ci niñ ko téye ndax niñ ko téye ndax jekk na ndax rafet na en tant que artiste yow na nga ko gisee. ah hmm. xam nga dafa am artiste yoo xamante ne jubóo nañu seen ay biir. Mm-hmm. am ñoo xamante ne jubóo ñu seen biir. Mm-hmm. am ñoo xamante ne bëggante nañu seen biir am ñoo xamante ne bëgganteewuñu seen biir. Mm-hmm. ñaata artistes ñoo fi liggéey seen moroomu artiste comme ñoom ñaata artistes ñoo fi tàkkoon fay si saasi day am yoo xamante ne dañ koy def si suuf sa moroom mm-hmm. artiste mën na la gis yow ngay def loo xamante ni def ko mu dem liggéey la mm-hmm. bu la jàppee rek dafa fekk ni sa sëriñ baaxul ndax amul am na ñoo xamante ni boo leen liggéeyee doo leen jàpp ndax koo xamul lu muy ngéemboo pour man pour nga jàpp ko du yomb right mais nag amul sañ-sañu taxaw ni man kenn du ma jàpp waaye boo pare ba taxaw yaakaar naa ne ko la jéem a liggéey de suuf la jëm ndax am na nit yoo xamante ni seen tur boo ko tegee si sëriñ barki alxuraanul karim da ngay wàcc dëgg la yóbbu seen sëriñ abubakar rek mooy yow hmm. fàttu fajalaaw ngay def direct wala nga neewi ba futt te daani ko hmm. man maa def li ndax dafa am sëriñ yoo xamante ni dañuy liggéey liggéey yu bon am sëriñ yoo xamante ni dañuy def lu baax lu baax rek ni mhm. ñu def lu bon mhm. mais am na tur yoo xamante ni boo koy yóbbee si sëriñ mhm. da ngay yàqu ba faw right voilà right loolu boobu boobu boobu boobu am naa lu ma leer de Euh, mm-hmm. mais mais mais mais exactement xam nga yow actuellement tu es en train de vivre aux États-Unis non du loolu laa dégg. waaw maa fi. voilà te ñun ñun dañu nekk fii ñun dañu am problème on a problème en tant que sénégalais mm-hmm. mooy que art bi dafa bokk ci suñu culture ñun dañ ko fonk moom moo waral ñu ñu nekk ci cas bi nii di di sonn ah. mais il semble que am na ñu nga xamante ni. ñu ngi ci biir aar bi mais aar bi intéressé wu leen ñoom ay mbirum poos ay mbirum koom-koom ñoom ci loolu la ñuy dox te lijjantiwuñu retombé yu mën a am ñoom na seen poos fees rek te ñooñu noonu mais il est temps que ñun en tant que la jeunesse sénégalaise yéen laay wax bokk parce que man maa ngi départ mais mm-hmm. am na lu nga xamante ni quand même la bu nga xamante ni yéen ñii nii da ngeen ci war a faay parce que parce que yéen yéen yéen a téye art bi affaire bi ay génération la génération bi day ñëw bu paree beneen génération ñëw téye ko wala wala warul demee noonu. waaw xam nga buñ ne aar dafa ëmb lu bari mm-hmm. mais euh, bu fekkee en tant que man quoi. Mm-hmm. sama kenn jàppalew ma kenn puusu ma. Mm-hmm. ku dul ki ma jur moom ma jàppale moom ma puus ba tey ma toll fi ma toll. nekkuma star mm-hmm. te duma star bu mag mm-hmm. waaye ñi ngi si yoon yoon bi nga nekk ak sa bopp la yaa mën a fight pour nga am li nga bëgg mm-hmm. parce que doomu aadama yi dañuy bàyyi ba nga am tur ñu commencé naan diw diw diw mais ba nga doonulee dara kenn du la considérer personne adduna bi noonu mais boo demee ba commencé am tour ñu naan diw xamoon naa ko wala ñëwoon na fi wala jaaroon na fi. loolu gis nañu mm-hmm. ko fi dañ ko jàng. bii bi léegi loolu la dangay ngay bokk ak nit sax ndaay ak bàyyi mag ak raq mm-hmm. sa raq yàlla mm-hmm. ubbil ko xéewal ñu jël raq bi teg ko ci kaw jël mag bi teg ko ci suuf ndax xéewal bi yàlla ubbil raq jooju noonu ça veut dire que doomu aadama léegi jaamootuñu yàlla dañuy jaamu xaalis ñenn ñi donc nag pour wax ci àdduna bi quoi nit yaay fight pour sa bopp. Mhm. yaay gëm sa bopp. bul xaar dara. Mhm. doo gëm sa bopp. gëm ne fi nga bëgg njëkk. Mhm. yow yaa koy liggéeyal sa bopp. doo faale benn millionnaire doo benn milliardaire. yow sa bop ngay faale xuus si yoon bi nga nekk gëm ko. nekk ci ba yàlla may la bunt boo doonee star ñëpp lay fekk si loolu par la force la. ni la may dañ lay may te boobaa da ngay encaissé te teewul am nga li nga li nga am loolu mooy base bi d'accord yep maa ngi lay vraiment maa ngi lay remercier parce que réponse yi c'est c'est c'est vraiment am naa lu may lu may laaj quoi parce que sama bopp mu ngi mu ngi leer parce que dama bëggoon exactement comprendre un peu showbiz bi xam nga man man du ma artiste mais boo boo boo amee chance wax ak artiste Euh, mm. dina la mën a gindi ci lu bari quoi maanaam am na ay njuumte yu bari yu nga xam nekkoon naa ci mais yaa ngi ma koy leeralal nii ba ma mën a comprendre quoi ah. léegi euh, mm-hmm. li ma bëgg mooy mm-hmm. euh, yow en tant que ku ku yàgg ci ci art bi yow actuellement ñan nga xam ñu nga xamante ni ay promoteur lañ yu yóbbu ay danseur Europe wala États-Unis ñu dem di fecci à part à part bi ma wax ni moom moo yóbbu woon Aziz à en ñan nga xam ñuy yóbbu ay artistes ay groupe d' artistes ci Europe bi ak ak ci kaaw bi. waaw promoteur yi nag am na ku ma xam Mauritanie day indi ay artistes artistes yu mag yi ñëw Mauritanie ñu bëri sax. Mm-hmm. moom bokk na nga xamante ni moo leen di indi mi ngi mi ngi tudd DJ Boubs macha allah ku baax. ah DJ Boubs bu Sénégal ah. non DJ Boubs bu Mauritanie sama sama nit la sama frère la moo doon def concours danse yi moo doon indi ñoom yaa gisee foofu noonu ak gars yi ñu bëri artistes yu bëri ngay dégg moo leen indi foofu. ok am koo xamante mi ngi tudd Zef indi woon na fa tamit Bastion. Zef artiste la Zef waaw. ok Denga. nga donc ak yeneen nit yu baax yoo xamante ne dañu bëri genre waaw Wally Seck nag programme bi mu ñëwee woon Mauritanie Wally oui ñoom Doudou Seck bu Columbus Ohio bi nekk États-Unis fii ñoom ñooñu ñu organiser woon euh, programme boobu ak Fat sama xarit la moom tamit programme yu bëri am Mauritanie ci loxoom lay jaar ah ok ñëw Wally Balané ñoom ñoo ko géré woon affaire yi te ñoom ñoo ko fi mhm. indi Écosse dégg nga donc c'est ça ñooñu laa xam ci ay nit yu baax ñoo xamante ni ñooy indi artistes yi Mauritanie mhm. donc voilà donc c'est ça am naa nag ay yeneen lenk yoo xamante ni xamante naa ay quelques personnes mais dañu mhm. bëri daal dañu bëri mais ñi ma xam Mauritanie donc ñooñu la daal ñooy indi artistes yi jóge Sénégal di ñëw foofu di ñëw Mauritanie quoi ah, waaw waaw Euh, léegi bu fekkente ne ba tey nekkul lu luy luy xaw a compliqué pour yow côté côté Europe bi ñan ñoo ŋànk business boobu. côté Europe bi ay Italie Espagne France. waaw côté yooyu noonu xaw ma. wax dëgg yàlla xaw ma quoi. ok. d' accord côté côté kaaw bi nag actuellement États-Unis bi nga nekk nii. waaw côté kaaw bi nag moom wax dëgg yàlla. amna ay grand yu bax yu ma fi am ku ci melni ni Doudou Seck bii ma la mhm. ya wax ya ni mom ak ñom Sankara mbay ñoy and dégg Sankara mbay waaw ñom ñoo ñoo ñoy and dégg ok ok géwal ma sha allah ay nit yu bax ñoo xamanteni marqué nañ seen attente ok géwal lan nga wax. géwal géwal mbay mo doon dëggal mo geet ci bongo ci jack privé wi ñu bari xam nañ ko. ok. donc ay marqué nañu seen empreinte fii États-Unis euh, ay nit yu allah daal waaw ñooñu xam naa leen. Mhm. donc c'est ça. d'accord. ñeneen nag moom xawma leen wax dëgg yàlla <laughs> ko dee ak sa bàmmeela ah. right non non c'est-à-dire que dañ doon def un peu le tour de ci jéem a xam actuellement showbiz bi ni muy ni muy doxee quoi côté boobu laa bëggoon a juste vérifier. Euh, mm-hmm. donc euh, maa ngi lay remercier Zocash mm-hmm. euh, voilà donc maa ngi bàyyee kàddu bi ñëpp ñi ci kaw ak suuf ñëpp maa ngi ziar ñëpp jërë ngeen jëf. ok boku léegi nag j'espère que merci ko taxu wàcc ah? bul wàcc please. ma waaw water, waaw nah, watar mang ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax waaye dama yow ba ma maa ngi la koy ñaan bu fekkee man mën nga maa may like eh, benn two minute, ma ma ma waxtaan ak Zokas like question la rek ak tontu quoi ok Zokas mang ngi lay ziare waat bu bare bare bare, man la man la hélas comme dengan da nga ñëw doon man damay indi elas bi rek ma donzo. Bayang doon jam ba ci rek cool legi dama am dama am ak yow ben waxtaan bu ndaw rek wul sax mais comme like question la ak tontu da nga ne yow ak Aziz Dabala xamanté won ngeen doon ngeen déggante téléphone euh, ba légui tamit yaangi dégg waaw. loolu yëpp waxuma ko fi. Hmm. xamna Dabala nit ku bax la waxal la ci mom lu bax waye waxuma la dañ doon déggante téléphone. ok merci. li tax ma xam ko sama xarit la. ok. na ko sànq waxat na ko. ta biñ ko xamé ta biñ ko xamé digënté bobu musulen musulen am contact. non non non non. ba banim banim mu ba ni génn am contact. mo suñu waxante même pas vocal pour nga dégg dégg ok merci beaucoup fofu ya dama dégg tamit nga ne yaa ngi déggante ak magam ak ak ak waaw ak rakam bu jigéen mooy ayda mooy système boobu noonu rek maa ngi dégg ak de moom dama ko doon jaale rakam la waaw yaa ngi déggante ak moom doon waaw ok mun na maa mun na maa xam ñaata temps yéen ñaar yéen a ngi déggante avant assise ah, di dee la wala bi mu ba pare non kooku ba ñu commencé déggante mun naa ne la genre amul deux mois. Mhm. kon bi Aziz kon bi la ba pare. waaw bu mu dee ba après la quoi man maa ko def si jaale ko xam nga. Mhm, mhm. xamal nga ko donc yëg naa lépp. xam nga wax lu baax li ma xam ci Aziz xamal ni man la diw. sama xarit moo ko indi woon foofu Mauritanie xam nga mu ah, ok ok baax na léegi yow bi nga ko xamee ak léegi ñaata temps la def. non man Aziz Aziz yàgg na di ko dégg Aziz sama xarit boobu indee mooy la wax sànq indee Mauritanie programme boobu. waaw loolu comprendre ko comprendre naa ko quoi comprendre ko comme ñaata temps la def daal. loolu loolu amul deux ans yàggul. amul deux ans mën nañu xam ban année la woon quoi. année bi si ah xanaa ma xoolaat affaire bi de li ma lay waxal. ay un an yooyu lu amul lu amul deux ans moom xanaa di nga xam parce que ñu ngi twenty twenty four I think so amul deux ans loolu mun maa la ko wax loolu yàggul ñëw Mauritanie boobu ñu bëri xam na ko mi ngi internet non man maa ngi koy doog a yëg wax dëgg yàlla. voilà daanaka du may jóg ci internet bi wax. daañu daañu bu gis. waa mais dama bëggoon comme yow yàlla def na yow ki ko indi woon foofu sa xarit la kooku moo taxoon nga xam ko moo la ko présenté si si lu ma si lu ma dégg nga wax. Euh, te yow xam nga yow xam nga exactly euh, time bi nga xamante ni kooku noonu defoon na programme boobu ba indi ko foofu noonu ba nga moom wax nga fi tur sax kooku noonu tamit mais bu ñu mënee xam. Hmm. année bi tamit daf ñuy arranger quoi comme loolu yëpp dafa bokk ci laaj yi quoi bu fekkee tamit mën nga ci dawal yërmande tuuti. Hmm. xam nga man sama bopp yi li si nekk dafa bëri ba may toog di calculer ay année mais ku dugg page yu Aziz Dabala boo xoolee dinga xam année bu mu ñëwee Mauritanie ak hmm. mu fa ak yu mu fa def ak yooyu yëpp page am bi léegi. mais Zocash mais socas xam nga tey yow yàlla dafa dogal na yow nit nga ba pare booy wax dañ lay déglu en plus sa wax dafa dal da nga teey ba pare xam nga nooy waxee tamit xam nga nooy tontoo doomu aadama mais mag tamit bu demee ba jël benn décision pour wax rek dafa war a mun a wax wax bi ba pare mu leeral ko tamit dama jàpp ne bu fekkee da nga wax ne dañ la ko présenté ta programme taxoon mu ñëw nga ba nga dem ba waxal ne matul deux ans kon war nga mun a xam année bi exactly kon lu lu lu waral nga bañ a tudd année bi exactly parce que lu matul deux ans because ñu ngi ci twenty four I think so yow war nga mun a wax exactly année bii la woon man jàpp naa ne sa bopp lu mu bari bari bari lu ci nekk tamit jàpp naa ne fii ak deux ans boo amoon na fàttali ne diw moo leen boole woon rek ah au moins war nga mëna a wax né ané bi la ñëwon Mauritanie. pour man xam nga man xam nga man dama doon organiser ay soirée ta man mi sama bop mënuma la wax kañ la doon organiser ay soirée xana bop mo gëna dé zokage doon organiser ay soirée soirée di fess del, té mënuma la wax ban ané la wa léegi xana bop mo gëna dé la lay nekk fi naan ané patati mel ni man damay top yoyu man awma temps bop bo dugg ci page am ko gis Euh, Muna naa wax kañ la. voilà donc Mina mun na wax kañ la Don't euh, donc c'est ça. Mina. non non let him come. ok no Haral. because mm, I know him I know him. yeah I know you know but. You need to ask me many questions. I, am not answer for this question because I know what I am talking about. A lot of people. Okay, man, lima d'accord. Yes, I understand you, bro but man, that's why I, I know what I talk because people. No, let me. ok let me come please let me come Hamuluma nga lu ma man bu fekkee ne am na question bo xam ne dañ ma ko posé te bëgguma ci wax dama naan la noo question bo bëgguma la ci tontu exactly but I don't I don't want to tell you I don't know but yeah no you know. voilà donc <laughs> that's right I know myself the first. yeah ok do you do you know yourself but. donc I know what I am talking about. you know okay, I think you. about lot of things because voilà donc loolu la quoi xam naa après moo tax question yi damay répondre mais du ma ok léegi léegi léegi léegi bi nga xamee fi mbir yi di jëm looloo waral doo mun a répondre exactly like du ma dugal xolal mënu ma dugal ci am naa non non non non non yeah I don't I know but fii kenn du la dugal ci kàmb incha allah te kenn mënu la dugal sax ci kàmb parce que nit njaay nga buy dox ànd ki noppam ba pare am xel di dégg mais tamit nit ñu ngi fi fekk tamit da ngaa ñëw fekk fi ay nit yoo xam ne ñoom it dañuy déglu ba pare seen question yi ñu lay yi ñu lay posé dañuy ñëw ci say ah. biiri wax di la ci mm-hmm. posé question parce que boo waxul woon bo bo man nee naa la yaa ma xamal yaa ma xamal yaa ma xamal Mauritanie bi you man maa ngi gëstu ci Aziz Dabala lu bare bari mais Mauritanie boobu yaa ma ko xamal ci ci dem ci dem programme mais man xamna ben place ci Mauritanie lolo waral mala don laaj ban année la amna luma opérer ci année ben année ci Mauritanie si ben programme si ño xam dañuy yëngu ci walu showbiz amna lu xewon ci hôtel bobu lolo waral ma laaj la ban année la bi ma tamit né nga ma matul 2 ans légui loolu dina ci defaat ay gëstu yaakaar naa ne ci gëna xam lu fofu tamit merci beaucoup. am na question bu ma la bëggoon a laaj euh, bàyyi laay laaj na la ko ba foofu noonu tamit dama yaakaar ne bëgguloo tontu foofu mooy ndax xam nga ay nit yoo xam ne dañuy indi nit ay promoteurs yoo xam ne dañuy indi nit lu mel ni ay Europe wala ah, États-Unis ah, ñi nga jot a xam États-Unis wax nga. Mhm. léegi xaaral maa ngi sama maman nee na ma wàcc live Can you give me five minutes, please? Can you give me five minutes more, please, bro? No, no, not You have five minutes more. Because I want to Okay, thank you. ka thank you bro good luck good luck thank you maa ni bége panel bi leen siyaare di leen taxoon ma yeeg oh my god wala ngeen def ngeen nga ki mu gaw, ma wàcc quoi it's okay it's okay bro it's it's okay, it's okay. la bail, bail, bail keneen mu dem parce que man xam naa ne fi ma jëmoon noonu eh, oh la la non kii wal damal, demal mi ngi ñëw demal waxal

yaa léegi man dama tax nag ma tontu la ni zoo maa ngi nii sama page bu baax bi laa duggee. ok so mënoon naa duggee faux doxuma si yooyu. ok soo léegi moom bu mu ñëwee dafa ni moom wax na li ma doon wax fii wax na ko ci sa ci sa laaj léegi man ma bëggoon a laaj ba première question bi mooy su ma nangulee. Hmm. mooy moom faral di ñëw ci yow. maire boobu de boobu yéen dëgg dëgg waaw incha allahu rabbi dootul yéegati sama live te su ma wàccee li ma koy wax dina man déglu ma rek ñëw na quatre fois ci sama live comme que nee na laaj leen zoo sama waa ji zoo kaase ngi nii ma tontu leen si rek ak teranga xolal zoo xamul xam-xam luwul ragalul dawul puusul je suis là toujours yaa ngi dégg. so understand naa li nga wax yëpp te maa ngi. accepté naa loolu tamit ok. voilà léegi léegi man dama dama bëgg a poser ay questions yu short question rek nga tontu la léegi man néew ne ñëw na quatre fois si si yow léegi man dama bëgg xam ban anam la ñëwee ci yow maanaam ban état la ñëwee ci yow bu ñëw foofu di wax. waaw état bu mu ñëwee si man wax naa leen ko sànq te li ma fi waxoon laay wax te question yi ma doon laaj moom nañ may laajaat ba léegi. non man fekkewuma loolu so moo tax ma laajte voilà wax naa ko sànq nag ñoom xam nañ si dara wax naa ko sànq wax naa ko sama waa rek su fekkee mënuma eh, pour nga comprendre man dama direct ba nga xam ne su ma xamoon ku rey Aziz Dabala damay taxaw ne sénégalais diw moo ko rey doo ragalu de dama xam nga ko ragal mooy nekk di laqatu di dugg ci roq bunt yi ak patati wala patata man sama sama compte normal laa de Zo Cash l'international. eh Zo yaa ngi hmm? no question bi ma lay wax man deew xoolal léegi pour mu leer deew Aziz Dabala man concerné wu xam nga sénégalais lay pousse ba nga. maanaam dama lay wax rek dafa am question yow ma la dañ ma ko laajoon ma dama si delluwaat. ok that's why kon ñu jàll si leneen kon ok ñun jàll dama la laaj ban état la ñëwee man fekke wu bi ngay wax loolu. ah boobu noonu dama si xuus dama si xuus parce que amalu ma important bro loolu na ma laajoon sànq ñu laajaat ma ko léegi. Oh, man man la amal importance. moo tax laaju leen ko maire ba muy expliqué fii laaju leen moo tax ma yegg si live bi ba mu ne laaj leen Zocash eh Zocash a ngi moo tax ma laaj la. voilà léegi nag bu kenn laaj Zocash nag Zocash dafa xamul man koy laaj man xam su su ma la xam. wait brother brother I don't know nothing. nekk nekkuma di argumenté ak yow man dama la laaj. ban état la ñëwee ci moom tontu ma dafa am question buy dafa bëggoon ci kaw live bi wax yu wàcc yoon. ma ni ko diw mu ne mën naa ma ni ko. góor yàlla dafa yàlla dafa demande. dara lii du ko waxee fii rafetul man loolu laa ko wax moom dafa juum si kàddu rek moo tax mu ne laaj leen zocage mais zocage du du du zocage. xamul wax na ko si sa live man ma bëgg xam ndax ñu ñëwee fii noonu la ñëwee ci yow. man de lu mu wax nii dégguma lépp de daggit bi nañ ma yónnee ma déglu ko waaye li ma si mën a capturer xam nga mooy lan mooy laaj leen Zocash gars yi ni ko dañu bëgg xam kan mooy Zocash eh déglu naa ko de léegi nag comme que gars dañu bëgg xam kan mooy Zocash ñi ma xam ba pare xam na ma xamul nag Zocash a ngi nii bi problème a man personne zo ma de man léegi yow nag sa personne yow intéressé wul zo Well, no, if you're not care for someone, someone they're not care for you. No, no, ok no boo lijjanti woon nit ki lijjantiw la boo nee sa no, loxo faale woon nit yi nit yi faale No, la non waxuma la faale wu ma la dama ni man maa ngi wax ak yow ci rek maa ngi wax ak yow ci rek ngay wàcc yoon dama lay tontu si anam very go parce que yow yaa ngi nekk tàngal loo xam ni jarul tàngal. non jarul tàngal amul dara lañ fi tàngal dama ne la anam bi wax ak man laa lay joxe réponse la live la. léegi léegi zo woota woota woota woota deux rek woota woota baax ma de baax ma non dama bëgg moom deux secondes rek. man maa bëgg euh, ak moom dama ko zo non ko sori te duñu dem pour sori. waaw waxee man laa la tontoo rek. non man dinaa fi wax affaire intérêt man la. da ma jëmm zoo intéressé wu ma tegal la si nii te jëmm ah, yow intéressé wu zoo. may ma ok nan calm down calm down. léegi dama la am listen to you. ok su fekkee li ma la wax la vexé maa ngi lay jégalu mais man man tamit su ma la waxee lu la metti maa ngi jégalu. ok that's fine but li ma la bëggoon wax rek mooy man di wax si yow loolu taxul ma yéeg moo tax ma wax la loolu ba su fekkee ni dafa affaire bi li ma ko waxee naay su ma jégalu. ok mais man Ramata rek laa bëggoon laaj su fekkee ni man lépp sama question yi ma am mënoo ci tontu ma arrêté mais bu ma wax ni bo ñëw fi pour lii ak laa man dama ni ndax moom état bu mu ñëwee foofu mën nga ma ko wax ñëw na ñeenti yoon si sa laaj ndax bu muy ñëw dafa wax wax ju yenu maana bu régler wala non loolu rek laa bëgg a xam. ok d' accord euh, waa Sénégal laay waxal ni public bi nga xamante ni yéen ak may seetaan si suuf sama waa Euh, sa maa ngi jégalu sa question boobu du ma ko répondre damay daaneel nii ndax sama mama nee na ma wàccal te gars yi ma zocage mooy loolu euh, public bi nga xamante ni yéen a ngi si suuf di déglu euh, maa ngi leen di béggee di jégalu buñ fi defee ay njuumte di jégaluwaat di xaaraat nag ba waxaat ni laajaat leen zocage boobaa tamit dinaa ñëw tamit ah ne lan nañuy laaj zocage ndax buñ ne laaj leen zocage am naa droit ñëw ni gars lan nañuy laaj Zocash amuñu dara luñ koy laaj parce que Zocash am na lu mu tal lu dul ay yenn yi xam nga di détail si yoo xamante ni mooy loolu Zocash du dara benn simple doomu aadama la duma salaamaaleykum waaye nit laa comme doomu aadama yi mais comme que dama déggoon laay bi ñu ne laaj leen Zocash Zocash a ngi nii xamul lu bëri ci deewu Aziz Dabala te su ma xamoon kii ray dama koy teg ñëpp di gis comme que xaw ma ko nag du ma ci jéem a dugal sama bopp du ma jéem a wax loo xamante ni tamit daf may dugal teg ci ne ragaluñu dara si li ñuy wax li ñuy wax yëpp day leer parce que yàgg nañ si réseaux sociaux yi xam nañu nu ñuy waxee ak doomu aadama yi xam nañu nu ñuy tontoo ndax ku yàggul si réseaux sociaux yi da lay posé ay question ngay délire di wàcc yoon di tëb di dal man dang may posé nànk ma répondre la nànk nga poser ma benen alam ma répondre la alam bi nga xamanteni mom nga ma poser parce que aduna nonu la mais nak su fekke juum nañu ñi nekk ci kaw voilà man dama lay laaj lii rek euh, c'est que tamit yow ci say wax da nga ciy juum dafa xaw bari ko parce que sank bi nga yegg da nga ne compte bi du sa compte sa compte ko ma tereer la xaw non non non non bay tëj eh, Modou eh. non non ya ko wax de yaa ko wax nga ñëwaat bay tëj après nga ne sa compte personnel la tamit loolu tamit ma éviter rek il faut arrêter ce genre de truc là gis nga boo dee mag da ngay wax loo xamante ni loolu la nit ki wax eh dama ni sama compte laa la international moom laa duggee boo duggee da ngay gis sama vidéo ci bi nga ko mais yow boo jëlaatee sa loolu yaa ko wax Modou xoolal da ngay daanu ba këpp baax na ah. ma wax la nañu daje live bi. ok ma question ma répondre la mais bul wax wax ko man toujours je suis là. I'm ready for everything. Yeah, no, you're not, ready, you're not ready to answer the question. So, this lady came to your life four times, and you cannot tell me how she came to you. How? I don't know her. I'm not telling. if you know her, she came there four times and you say yes i know she came over there four times but i don't know her i don't know her yeah, i don't know her she yeah. just came and say certain yes she came over there she explained to me like that i tell her send it me your number i'm going to ask you after that i asked her she explained to me a lot of things but i don't have any time for explain to people some so that is the good question that is the good answer you don't have yeah, time. That's right, because. Okay. okay. So you came here to answer the questions. I came here because she tell people ask Zokash. Yes, so we ask not, answer. I, I don't I don't know nothing. <laughs> okay. That's that's, that's, right. I can't. Okay, commentaire mi ngi bëri nee nañ ma wàcc wàccal wàccal mais xoolal

si vous plaît rek ndax nga mën ñu dimbali ñu mën a xam li ñuy xeex ndax attan nañ ko waaw wala déet parce que ba tey ñu ngi xool xamaguñu ah. Hmm. showbiz bi naka la affaire euh, lobby yi naka lañ ko ŋànkee loolu lañ bëggoon xam. ban ban degré la. astafurlah xoolal xaw ma luy lobby. Mm-hmm. yàlla na ma yàlla musal si lobby. Mm-hmm. boo dee góor jigéen sax duma la xool yàlla ma yàlla musal ci tur bi mm-hmm. jéemuma leen lijjanti mm-hmm. lijjantiwuma leen mm-hmm. yaa ngi dégg xaw ma ci loolu dara <laughs> yàlla nañ ci yàlla maa ngi dégg voilà maa dégg mais bon xam nga xam nga ñun ñëpp ay sénégalais lañ am na am waxal sama waa ji yàlla na ma yàlla eh, eh, def leen ba pare léegi dégg ah, waaw dégg <laughs> ma man dégg euh, dafa mel dafa am ay écho wala wala ci yow la. ah. Euh, dama ni. Hmm. Euh, loolu le fait que saxel dem foofu sax ni man ne loolu laay xalaat man. loolu naka la naka la ma non non rek. waaw tuuti naa ko déjà su ah. ma dalal sa mais mais yàlla xam na ni. Hmm. man su ma fekkoon loolu laal bëgg a laaj dama la koy posé directement sincèrement. dëgg la dëgg la. mais mais xalaatuma loolu c'est-à-dire que dañu xam en tant que ay sénégalais en tant que ay magum jëm ne loolu mu ngi ci biir Sénégal yàgg na fi te dafa sori te ma jàpp ne bépp sénégalais boo am plus de vingt ans war nga war nga ko dégg comme ni ma ko déggee. chéri sax mi sama chéri mi ngi reetaan ndax li nga wax ni waaw am am na droit ree mais yow lay reetaan parce que yow pour pourquoi nga jëli fu nga xamante ni man jegewuma sax foofu. waaw ah, baax na. voilà parce que nous on est en train de parler entre ay góor yàlla quoi man ak yow donc xel warul dem foofu. demul foofu sax dama bëggoon na ndax <laughs> man man ñooñu moom seen ay buñ koy waxee sax maanaam mooy loolu quoi duma fa duma fa voilà waaw mooy donc remercier bu baax en tout cas ambassadeur bisimilah waaw di kontaan ak di kontaan ñëpp ah. macha allah di kontaan question yi di kontaan. ma question ba léegi. Mina waaw bee wax. mën naa la poser question ah. jawal ok. when is the last time you talked to Ndeye the lady. ah what the how late. Yeah. <laughs> when is the last time you talked to her. Uh, she long time I'm not talking with her. You know I going to explain to you down but because I know. So when she come you know, to your life, did she was high? She, she was come high? full time over there. She so she, she need to talk some. High? Huh? She was high when she was in your life? I'm not, I don't remember the time she came over there, but uh, I know she came over there. Uh, she asked me, Lara, can she, she talked, yeah, she talked. People there listen. I don't like she talked some stupid things over there. That's right. I ask her, I tell her, stop the talking. If you send me your number, I call you back. After oh, that, I call her. She explained, she explained me a lot of stupid things. I don't know. I don't like talk to her. But if I go down with you, I go talk to you later. It's not okay. here. No I problem. people, they listen, they put these things far. Okay. No problem. Okay. Wabana, okay. No problem. Okay. Okay. Ngeen ñuy dosé nii tamit ñu déglu anglais. kii sama bébé la lu may laaj ni mën naa mën naa waxtaan dosé wu de dosé wu ma de c'est dama gis ne sànq woote daf ko posé question ci anglais bi mu xaw a tontu ci noonu moo tax ma daat mm. wax ji encore ci anglais. waaw damay tooñ rek. mais anyway euh, kii euh, man zoo xam naa. ndax mu ngi naan sama chéri sax mu ngi macha allah sa chéri boobu ñu ngi koy def un grand coucou. non Mina la la ma ah. lay wax man mii lay wax. Ah, waa ah, kon baax na. waaw euh, comme comme li may wax rek ci affaire raamata bi nag musuma ko ci poser question. mais kii euh, xam naa ko xam man ak moom ñoo bokk benn village. ci ci ci Mauritanie comprendre. xam naa turam dëgg-dëgg. xam naa tur yaayam xam naa tur papam ki indi woon ki indi woon euh, Aziz. man man ko laaj loolu sax démb démb man maa la wax man maa ne la mus naa gis benn vidéo muy publicité mu nekk Mauritanie. après nga wax ma nga wax ma turu producteur boobu. Ba Aliou moo Ba Aliou mais loolu mu ngi woon ci page Aziz mm. eh, am na feneen fu mu ko gisaatee encore loolu Zola moo ko ci loolu mais ci côté Ramata bi nag musuma ko laaj zoo ci loolu mais di ba pare man moom dinaa la laajte moom bu ma wàccee. ramate bi xool soo ma ma tegal la lépp ma ragal ma lool. waaw baax na kon yow zo zo yaa ngi dem ah. zo zo waaw Mina sama. zo yaa dem maa lay remercier. sama bébé la te yéen dañuy rek. ah. waaw waaw xamoo leen lool. zo. Zor yaa ngi dem ah merci. kontaan naa si yéen ah yéen ñëpp bu kenn euh, mer ah. I have a question. hello Okay. salaamaaleykum nuyu naa Question. what the hell. I have a question for Zokas. ah. Zokas, how are you. I'm fine. Why you don't why you don't want to talk Wolof? Why you keep talking English? I speak Wolof. I I'm You do speak English. You I'm, ah. you do speak Wolof because the English you talking is not normal. It's not like you're now speaking hey, English well, listen, and you just I, making so much hey, mistake, listen, and you keep not, talking Betty, in Betty. English. Why? Okay, Why not, you guys like to those hey. people today go and angle? I'm not like anyone here. Okay. Listen, I may speak a little bit. No, they need to stop it. Come on. No, deglo ma yow jigen nga dama la tontu deglo ma da ngay deglo live bi kenn meroon. kii di wax ak yow gën I am talk to you te yow sa angale yaa ngi jaxase loolu tam baaxul. bàyyi leen li ok ok Zocash. non non non it's ok it's ok xaaral xaaral xaaral. def nii nag bàyyi ko kii gan la ci dëkk bi bàyyi ko. non xaar leen. kii fu gan bàyyi dose angale yi muy jaxase na laa ko wolof ñu ngi ko angale si suuf. wàcc loolu gisee ma metti si laay bi. mais man li may wax ñi may wax ñi ñi koy dégg di comprendre li may wax n'est-ce pas. mais yow ok Jokas xam bëri nga problème. Jokas bàyyi Jokas. Jokas. waaw bàyyi leen moom ngir yàlla ma waxtaan ak Jokas tuuti parce que moom comme def provoqué la nga mer nga wax. mais pour xam nga mais pourtant non attendez attendez yéen tamit ma am lu ma leen leeral quoi pourtant pourtant man maa doon wax ak Zocash mu ne mu ne yaayam moo ko kool dafa wara a wàcc live bi ma ne ko just may ma benn 3 minutes or 5 minutes. boobaa léegi nekk na fi nekk na fi 15 minutes. waaw léegi moo xam nga la moo waral loolu xam nga xam nga bu fekkee yow danga laaj kii laaj kii laaj xam nga ku nekk ak doo comprendre mooy loolu. ak li ñuy laajte yëpp tamit amul benn chance. su dee ba pare ñu nekk fii di la laaj man daal li ma yéegoon ci laaj e wax naa leen ko. waa léegi xaaral boo tax da nga am loo koy laaj wala yow laajuloo ko. ok da nga bëgg ñu jàll ci leneen ci loolu lañ nekk kon bàyyil ma wax ak moom ñu jàll ci leneen tamit. you know non mais dama am information bu ma leen bëggoon a jox de. waaw ah, ok c'est bon. mu yeggali question ba pare s'il vous plaît. xoola ñaari moo kese kese comme da nga ne Aziz Dabala da nga ko xamee Mauritanie dama am fu ma la bëgg a laaj ci Mauritanie parce que man suñu waxtaanee please please ñëwal ma ci question bi quoi. mais yow boo ma gisatul est-ce que di nga pare ci moo Zocash bi yow. waaw dinaa ci pare incha allah. voilà léegi laajal ma waaj te bu man maa la doon laaj. <laughs> ok xaaral man maa la doon laaj. man maa la doon laaj ne la ban yàlla waxuloo ko maa la doon laaj ci ban maman la waxuloo ko léegi maa lay laajaat ne la. Nouakchott marché sixième xam nga ko oui ou non. marché sixième. Mhm. xam naa ko. merci beaucoup. man loolu rek laa may laaj merci jaajëf. marché sixième wala marché cinquième azo mina xaara xaara bàyyil bàyyil foofu <laughs> allo xam nga xam nga village euh, euh, Darou Salaam tamit am luma bi allo oui waaw alors dama amoon appel Mauritanie xam nga Darou Salam tamit am luma bi. da xamna fan. Darou Salam Mauritanie. ma ngi djegalou question yi nga may tonto ah <laughs> dafa xaw bizarre le plus important ah pour mu goudou ak pour mu baña gatt euh débat bi ngeen nekkone neex na ba nopi yena ngi si doon waxtan lu am solo suñuy góor ñoo fi nekk ak suñuy sister ak suñuy mag ak suñuy raq di leen jox respect bi bu baax macha allah ndax ñi nekk ci suuf tamit dañuy déglu ñoom rek pour bëgg xam pour xam lu bari ma leen di wax nag dañu ni laajal Zocash maire bi dafa jumba wax loolu mais Zocash. Why you don't want to answer my, my question, yeah, please, bro? No, no. I told you, you wasting your time. He is not answering. So why we just uh ah. -huh. like long? No, du loolu sama bro uh, water. No, because your answer was suma better question. ba pare maa ngi gis yaa ngi answer Mina. why lu tax. am na. listen Mina. listen down please guys Some question we kii du ko tontu ok ok Kusokas sookas maa ngi lay remercier bu baax a baax merci beaucoup yéen ñëpp. voilà am not droit tontu Mina su ma neexee Mina kase. su ma neexee la water yao kase du ma tontu keneen n'est-ce pas not the rules here. you answer You came here to answer questions. That's I ask her only because I know her, she know me, but I know myself the first. loolu mooy wax ji nit ku la xam yaa ngi dégg neex nañuy tontu si panel bi lu neexul duñ si tontu te tamit duñ. nga bañ ma tontu ba pare tontu mi same question. parce que tontu bi bul yóbbu affaire bi xoolal water man woota ba léegi tontuma de maa ngi nan la kooku ñëwee foofu ndax dafa xaay ba léegi tontuma ci loolu donc c'est ça bul yóbbu affaire bi mu sori pour muy gudd waxtaan bi nag après am ngeen leneen loo leen mën a waxtaanee jëlee si expérience xam ci lu bëri yaa ngi dégg waaw man kuy bëgg xam ci man doo xam ci ma parce que man man laajte wu. maanaam yaa ngi indiwaat question bi ci yow. waxuñ non dama bëgg rek xam ni maanaam. wootar wootar. wootar bàyyi ba léegi bàyyi bàyyi ko bàyyi leen ko léegi xaaral bàyyi leen ko bàyyi leen ko xaaral. si maman Sira xaaral. intéressant su ngeen paree. ok xaaral léegi pour pour ñu continuer pour ñu continuer ñun ñu nekk ci ñu nekk ci débat bi ñu focus quoi ñu bañ a ñëw si yow danga nga war a tontu question bi wala waruloo ci tontu mais comme nee na man sama question yi dafa bizarre. mom du ci tontu parce que man limu koy laaj man fimu ma dugg man xam naa ko. non wala xara wa fa nga juddo fa nga juddo ah eh. bro xaral lim fa juddo motax ma di ko laaj. wuy ma deglu wa deglu ba ma pare. let me let me talk please xola lim fa juddo motax ma di ko laaj man mi fa juddo wul ma am luma fa xam ba pare opéré limay xam ba paré bi nga yow man ak yow nek nañ ci kaw ma wacc lay 30 minutes yóbbu ma ci kaw. nga may tegal lii pour yow ben bandi la <laughs> déglu rek déglu rek bro man li lay wax ni xoolal déglu ma yaa may wax ay sixième bro yaa ngi waa yaa ngi ñëw nag xew déglu ma duñu ay ngaaka ok duñu ay ngaaka defuñu xoolal Mauritanie laa juddoo màggee sénégalais gën la doon yow sénégalais may di la làkkal olof boo xamante day dugg sa nopp di gën la doon sénégalais yow gën na doon Mauritanie non xamal sa xamal sa bopp rek bro non non non non non xaaral da ngaa bëgg a waxtaan xamal sa bopp rek xaaral waa déglu déglu dama ma nekk sénégalais bu dee jikko sénégalais voilà ma tontu la ci côté boobu non jaay ma la jikkoy sénégalais de mauritanien mooy wax ak yow wala comme ça gënoo ma nekk sénégalais dama lay wax xam naa ko d' accord naa ak yow wala comme ça d' accord naa nga eh sixième ay bërëbu bandi yooyu nga may laaj da ngay dem laaj ko bandi man duma bandi toxuma yamba naanuma sàngara xam naa ki ma don nekuma fi dañuy dañuy waxtan rek. yooyu yëpp yaa ah, koy leeral nii sax mais bro da nga war no da nga may laaj ndax xam nga ñom 6e wala ñom yooyu nonu xolal man Mauritanie yef ah, la xam. bo beugé deg deg Mauritanie Basra ba Tabrax Zeyna xamna ko. xanaa lolu leer na. Mauritanie ba Mauritanie daj loo mu fa wax man na la ci tontu mais dafa amul sens xoolal lu wax bi xoolal yow wax bi wax bi yëpp da nga koo guddal quoi pour mu leer yow dañ doon waxtaan ci laaj la question la ak tontu yow yaa gën a leeral sax li ngay wax parce que big na yow mënoo ci tontu rek tontu nag def sa mun na ko tontu boo ko xamul tamit loolu garaawut da la laaj su ma fu ma la wax noonu tontu ko rek léegi laajaat ma ma tontu la benn benn ñëw yow tamit sa caaxaan yi eh, ñëwal sixième nga commencé aca waaw nee nga xam nga fa noo waaw ok eh, jour bi ngeen jour bi ngeen org jour bi affaire boobu ngeen organisé bu Aziz Dabala bi mun nga ma please maa la ko ñaan rek léegi comme dañuy waxtaan nga ne ah kan moo ko organisé nay leer man maa ko organisé waaw yow ki ko organisé non non du yow tudd nga ko fi déglu rek maa ngi ñëw tudd nga ko fi n'est-ce pas ok nay leer tudd nga ko fii léegi ki ko organisé noonu tudd nga ko fii léegi dama lay laaj tiim bu jógee woon sixième tim boobu noonu laa lay laaj. Hmm. Ousmane saranxule boobu noonu loolu laay foofu laay ñëwee quoi tiim bu jógee woon sixième saranxule boobu noonu te mu tudd Ousmane. léegi foofu laaj ñëw di la laaj comme nee nga dañuy tontu rek léegi dama lay ñaan te yàlla rek tax comme commencé nañ dugg ci waxtaan bi. Ah, léegi exactly léegi ñëw voilà merci beaucoup léegi nag del tontu nag léegi wax ma IA bi nag ban année la woon. waa léegi dag may déglu xam nga man du ma wax loo xamante ni genre xaw ma ko dama ne la xoolal groupe boobu ngay wax yow xaw ma leen ba Aliou laa xam ma xarit xam magam Boubacar Carbo Boubacar sama appartement lay nekk tëjee sa micro sira please ma tontu kii ba pare wàcc voilà xam magam karbo Mauritanie ñooy nekkandoo sama appartement lay nekk lu bari group bi ñëwoon di fecc xaw ma ko ndax man programme boobu États-Unis la ma fekk. non ñooñu ñooñu duñ fecc de. déglu ma eh la groupe bi de man groupe bi xaw ma leen déggoo ma xanaa ki indi. yaa ngi may dégg yéen ñi may woo ngir yàlla waay arrêté yéen ñi may woobu koy woo bàyyi leen appel yi waaye yéen tam nag ah kii day wax bu fekkee yéen a ngi eh, ma kenn woowaat maa moom sama téléphone bàyyi leen ko waxtaan ok xam naa li may wax dofuma jën a jàpp ma voilà d'accord euh, ñi guru bi xawma groupe bobu xawma groupe bi xawma len xama kan laa xam lew ci walu bopam la xam sama way la magam nek sama xarit magam sama appartement du fa genn après lo lo Wahal. waxal nena la wax ma ane bi please Ane bobu noonu budé Ane bi ngay xaar barki karim aw ma temps di wax année bi xam naa ne États-Unis la mu fekk te année bi yàggul. matul deux ans matul non xaaral non xaaral non xaaral yow da Aziz Dabala yaa ngi ko xamee benn programme biñ ko indi woon Mauritanie foofu lañ la ko présenté. right indi dama ko xam te foofu laa xamee Aziz li ma wax jéggiwuma si benn kii xaaral merci. léegi yow da nga ne da nga xam Aziz Dabala foofu lañ la ko présenté mais nit buñ la koy présenté benn. dinañ la ko jox téléphone te nee nga yow mosoo wax ak Aziz Dabala téléphone. non non non mën nañ ma ko présenté téléphone mais mosuma wax ak WhatsApp. non no no xaaral dama la wax ne la ndax Aziz Dabala mos ngeen déggante nga mus non hara hara please let me talk bro hara hara rek da nga ne dañ la ko présenté ma la yow ak Aziz kan ngeen gëj a déggante nga wax téléphone du whatsapp du appel right Wow wow, kon biñ la koy présenté nan lañ la ko présenté ci téléphone sama xarit bi non bro booba da nga wax ne musuloo nit ki bu musul wax appel déggoo ma xanaa eh yow point bi nga bëgg a dugg mën naa si tontu te day li ma la wax leer xam nga ku soxla buzz wala ay affaire mooy nekk di kii man li ma lay wax nii lu leer naaña man ñi man addunaay nit laa xam mon frère ma nekkuma fii si TikTok bi di di di jéem a kon di wut connaissance wutuma kenn connaissance ay ndaanaan la xam ta ay ndana ñoy tuddu sama tour. bo bëggee dëgg ñu xolal Aziz ñuko ëpp daraja la wax ñoo mooy wuy ma non non xara xara ma wax la fi affaireu daraja wuy ma wuy ma affaireu daraja ñuko fi eh, non mëno ma japp affaireu daraja non xara xara xaara waxuñu fi affaire jut non wuy ma waxuñu fi affaireu daraja fi affaireu ndana sama xarit bi téléphone am moma présenter Aziz si téléphone appel en direct mais bul fi ñoo di ay affaire daraja parce que fii moom falal fii kenn tagul fi boppam fi ku ah, tagg sa bopp doo juum bro li nga doon xam nga ko keneen lim doon xam na ko ñu continuer ci wax bi mais bul wax ne ñëpp ay simple nit mais yaa yow yaa ne nit yu am daraja ñoo ngay dégganteel ñun soxlawuñu nit yu am daraja man damay jéem a wut bës wala dara I don't care for Aziz non xaara xaara xaara ñun ñoddi wuñ da ngay wut bës waxoo waxuñu fi ah, loolu ba tey man dama am ñu ma lay laaj fi nga jëm laa xam moo tax ma teel la

ok léegi wax mooy indi wax lemi lemi lemi koom léegi wax mooy indi wax comme léegi wax nga wax ba tuddal sa bopp Aziz Dabala Mauritanie bi ma ne la loolu yaa ma ko xamal bi nga ma ko xamalee ba pare man comme si mbiru Aziz Dabala si lay dox matin midi soir ci depuis mu décédé ba léegi man ci xam lan ci laa nekk ma dem ñëw waxaat la ne la xam nga place tel gasu gasu gëstu man du si man ngay xamee lu bëri dee bi xaw ma si dara laa Zocash man soxlawuma soxlawuma di jël ci yow dara parce que li ma xam dépassé na fi may waxee ak yow dama lay laaj yow dama lay laaj yow li nga tudd li nga wax ba pare li nga assumer say responsabilité nga ne yow international nga comme loo ko xamee ci carrière moo tax ma dugg ci côté boobu waa léegi loolu laa lay wax nii tamit mooy da nga ne yow booy gëstu demal gëstu feneen mais du question dara non xaaral xaaral ma ñëw yow da nga ne non xaaral ni ñu waxtaan ñu bañ a ñu ñu déggante nga dégloo ma xel ma dégloo la xel yow boo waxul woon bu tudd Mauritanie bi man du ma mës a ñëw dugg ci cadre Mauritanie boobu noonu nga ne ma demal gëstu ba xam li ngay xam waaye doo ko xamee ci Zocash ma ne ma ne léegi xaaral ma ñëw liñ la laaj loolu dépassé nañ ko xam nañ ko ba pare zo nee nga mënuloo wax année bi d'accord na ak yow nit ki duñ ko forcer ci li nga xam ne moom la yor dégg nga li ma la laaj comme mënuloo ci tontu thank you so much bro goodbye ndeysaan ay yéen may woo wax naa leen ngeen arrêté di ma woo soo leen dégg mon frère. ah ça va. waaw sànq da dama dégg nga ne am na feneen fu ngeen war mën dugg ba xam ci problème bi dara. non non léegi ah, Sénégalais yi eh, defal naa direction pour mën a xam xam lu leer. non non non yéen da ma bëgg dugal mais man doole ma dugal. <laughs> Sénégal la kon nee ngeen ma bàyyi ma demee. mais léegi léegi xaaral léegi mën ngaa dem léegi xaaral léegi xaaral xaaral it's okay it's okay léegi comme yaa ngi doon bëgg a dem. yaa bëgg a dem thank you bye bye goodbye. voilà moo gën maa ngi bëgg gars yi. ok goodbye les ok ok. ndax ñu may suivre am na samay nit yu ma doon suivre depuis sànq dañ kumpa ba dee ah samay nit yi nga xamante ni yéen a ngi may bëggee toujours maa ngi leen di yéen tamit. Euh, yéen ñi nga xamante ne xamanteew ñu maa ngi jégalu ah bu ñu juumee ñi nekk si kaw ak ñi nekk si suuf ku ma xam ak ku ma xamul suñu juumee maa ngi jégalu bu ñu tooñee ñoo ngi jégalu ndax yéen ñi di suivre live bi tamit perte seen temps di déglu waaw boo leen déggee njuumte tamit ñoo ngi jégalu ah yéen ñi nga xamante ni tamit doon ngeen ma laaj question yi su ma juumee maa ngi leen di jégalu su ma leen tooñee maa ngi baalu ndax bëgguma tooñ kenn xam nga bëgguma déranger kenn ngi leen merci beaucoup guys voilà euh, Aba Aba Aboukra oui Modou dafa am information bu ma gis lob su liir nga ko euh, euh, l'observateur quoi non je pense que bi ma liir nekkul l'observateur kii là? euh, Sénéweb, je pense. Parce que devenir Daphné Naboulay, une liberté fragile, risque de révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire, une convocation pour l'audition au fond éminent, euh, éminente. Mhm. Lire nga boobu wala liiroo ko. non liiruma ça veut dire que c'est liggéey bi ngeen di def am na solo quoi continuer leen parce que si c'est avéré moom xam nañ ne justice moo ngi réagir quoi. Mm-hmm.

ok mu ngi def effet bu baax jaajëf. Ah, jaajëf doo ñu gën a leeral loolu li nga wax lool lan la. Modou liral liral article bi benn yoon liir ko. wala wala bi partie bi importance liir ko. waaw partie bu ëpp importance bi ñu déglu ñu comprendre du muy wax. dane Laboulaye une liberté fragile. Mhm. xam ngeen ko wóorul. oui. mu ne premier point mu ne risque de. révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire deuxième bi une convocation pour l'audition Mon sais pas quoi? entendre au fond éminente ok comprendre là comprendre un bu ah, ok kon à continuer quoi di lu Vous avez Vous ko donc la yeah maa ngi leen di ziar bu baax tonton Ababoukara. si jaam maa ngi lay ziar bu baax di ziar zo ak ñi ma fekk ci panel bi yëpp en fait dama amoon lu ndawul ma buggoon a wax rek pour la prochaine fois muy modérateur yi maanaam bu ñu bëggee maanaam suñu amatee gan ñu gën ko mën a déglu moom it mu relax. parce que c'est important aussi gan relax parce que buñ koy tek un peu de pression rek day commencer nerveux té tamit il faut ngeen fatali ko tamit li affaire de meurtre là. c'est pas quelque chose bo xam c'est facile manam tey jii képp koy poser ay questions rek fay défendre de maximum limu mu mën ku ci nek bu nekkoon à sa place non, lay def parce que kenn bëggul ñu lay duggal ci dara mais bo bëggé piéger nit ki ba mu waxal bopom il faut faire nank, nank nank, nànk bi nak moy lan dañuy organiser ci kaw ba paré modérateur yi wala modératrice yi. lañ koy def genre euh, euh, euh, dama xaw a fàtte sax nu ñu koy defee TikTok ku ci nekk dañ lay jox temps temps benn cinq minutes boo xam ne ni yow yaay posé question gan bi bu paree ñu ne la d'accord merci yow nga wàcc keneen yéeg parce que bu ñu dajaloowee rek kii day bëgg wax kii di wax kii di wax parce que am na ñoo xam ne tamit seen wax day dëgër maanaam ñoom dañuy relaxé mais li ñuy waxee gan gi gan gi day yaakaar ne dañ daf leen bëgg kooku da leen di bëgg accuser directement comme comme comme du ma tudd dur sax mais am na ñoo xam seen wax dafa dëgër en fait ba pare beneen aspect bu important bi may souligner mooy ñu bàyyi ci xel bu ñu amatee gan commentaire yi ngeen baal ma mais foog ñu tëj ko. comme kan comme kan. non non tudd ma tuddee waxuma comme kan. damay wax da ngay wax comme ça bu beneen yoonee mu mañ a defati loolu. maman Sira s'il te plaît may ma terminer li may wax. parce que kii man gisuma benn question bu ñu ko fi posé bu koy bu koy tourmenté. est-ce que mën naa terminer. mu stressé fii calmement la ñu waxee moom. mën naa terminer li may wax wala yàlla vraiment. est-ce que mën naa terminer mën naa terminer man accusé wu ma kenn ñu ñoo bokk ban ñu bokk li ñuy wax mais dama bëgg rek ku ci nekk da joxe sa xalaat bu ko defee beneen yoon mu gën a neex. parce que Zo commencé wuloon dafa dafa am fuñu ak motam mu ça commencé nerveux ba aspect bi moy commentaire buñu amaté, gan nañ ko lu parfois dañ koy poser question répondre lire commentaire gan buñu am ci commentaire focus parce que li xew ci commentaire du xew fenen si si effectivement comme ni wax côté ma ambassadeur ma gis nga am répondre daal di bind un uh-huh, wala daal di ne question piège kooku bu ko liiree day xam ne ko dafa am fu ñu jëm ak moom donc bu ñu amatee gan xoolal bu leen ci maslaa commentaire yi tëj leen ko bu ko defee ñu am temps tapoter live bi stable ba pare ngeen def ko challenge ci kaw par cinq minutes kee wàcc ku nekk tontu gan bi relax ñëpp relax ñu am information lii laa wax. waaw waaw donc euh, voilà bu fekkee mun naa ci sànni ñaari kàddu El Hadj. Ah, ah? oui. kam laa kam kam kam li soxna si wax nii sànq nii soxna si wàcc léegi nii ah loolu dama ko seetlu quoi seetlu naa ko si live heure bu ñu amee gan dama koy seetlu si côté boobu noonu quoi déglu leen lu ma leen wax nii am na si ay invité ay invité yoo xam dañuy ñëw maanaam pour saboter live si commentaire déglu leen day tax heure man dama loolu yàgg nañ ma ko wax te effectivement foofu foofu laay ñëwee dama koy nangu loolu mu wax noonu beneen yoon heure bu ñu amatee heure bu ñu amatee kii euh, invité sur panel bi damay tëj commentaire yi ñi ko war a poser question poser ko question ngeen koy toog di ko déglu ndax loolu moo gën franchement. la parce que commentaire yi ku nekk mënul contrôler kenn wax lu ko neex. non xam naa li nga wax si mooy yoon quoi mooy yoon quoi ci côté boobu noonu quoi ma bàyyi la nga àggal ah. voilà euh, bon. léegi dañuy dañuy dañuy dañuy def comme comme d'habitude comme que actuellement dugg nañ carrément ci ci fight bi bëgg nañu xam exactement ce qui est arrivé à Aziz Dabala et Waly Gano ah euh, léegi euh, mën nañ ñaan lenn pour peut-être xam naa ni loolu peut-être water dina ma ci appuyer parce que mos nañ ci waxtaan ci panel bi euh, ñun dañoo nekk di di wër di bëgg xam fa la fa la dëgg bi fa la dëgg bi nekk di jéem a xam lan moo nekk ci ginnaaw euh, la mort de Aziz ak donc bu ñu amee chance euh, mun naa ko tuddee chance peut-être wala en tout cas bu ñu amee occasion euh, di recevoir ay nit yu nga xamante ni xamante nañ ak Aziz lépp lu ñu indi rek dañuy jël on prend quoi parce que ñun dañ nekk di dajale benn puzzle actuellement nii dañ dajale benn puzzle te ñi ñuy fayatal ñoom ñoo ñu ëpp doole ëpp ñu ay moyens gën ñoo sawar ba pare ñoom ñoo téye showbiz bi donc lépp lu ñu mën a am rek ñun nañ ko nañ nañ ko récupérer mooy information yi ñu soxla donc di di jaajëfal ñëpp ñi def seen participation ci ci ci ci li ñu jot a waxtaan tey euh, di ñaan rek ñu ñu jéem a euh, page boobu nanu ñu teg ko de côté ñu ñu focaliser waat par rapport ak information yi ñu jot a dajale ba ba fii ñu yegg si nii ñu jéem a xool naka la ñuy évoluer euh, ñu avancé waat ci kees bi incha allah woote loolu laa ah. xalaat te bon xam naa ne am na loo ci mën a yokk incha allah. waaw léegi euh, merci Aba léegi déjà balaa may dugg sax si wax jooju mooy euh, jégal leen ma sax ci man dama xaw a énervé tuuti ak <laughs> waa ji parce que man manque déglu tuuti balaa mu dugg mais damay gis ni.

loolu nak il faut ñu xam ko ñu ñu bañ a perte temps ci ay affaireu détails yi quoi parce que moom waxu fi dara lu luy tax ñun ñu perte fi 2 heures de temps wala yooyu amul légui am nañ information bo xamni ci ñun ci loolu lañu wara dox légui amna na yu ñuy wax fi ci affaireu euh en tout cas information bi man information la koy jappé tu vois donc ñi doon wax ni na bu lay genn réew meeg yoy yëpp si nga on peut pas écouter tout le monde

essentiel bi mooy affaire Aziz Dabala pourquoi on a fait sortir euh, Naboulay, quand ko génne le juge d'instruction bi wala Kenen, le procureur de la république waxu aussi dara léegi ñu ngi waxaat di indi beneen information bi wax ni dinañ remettre en question euh, contrôle judiciaire peut-être que même duñ koy auditionné etc et cetera et cetera c'est le cours normal de la justice ou pas mais si on remet en question le contrôle judiciaire ça veut dire que il y a des éléments nouveaux

kon léegi ñu toog jàpp ci lolu ñu xamni lolu loolu la mais mënuñu toog fii di débat am ay ñu xamni duñu xam dara lo xamni mëna changer le cours des choses ñu continuer fi di di di wax fi comme ça alors que duñu interpeller l'avocat avocat y a un avocat non ñu dem bind ko lettre wala ñu dem seeti ko wax ko li nga xam pareil pour wa kër wa Aziz la même chose ñom bu ci fekkee dafa am ko xamni lo loo mënti xam ak lu mu touti tuuti lu mu ñàkk ñàkk fayda demal nga wax ko waa parce que avocat xam na loolu nu muy contrôler lolu si vous xoolee la demande de mise en liberté argument yi ci nga c'est des arguments fallacieux loolu du argument mais loolu nañ teg ci taabal parce que y a a rien d'autre parce que l'avocat n'avait pas le dossier xamul li xew ñu a profiter ci loolu mais ce du argument yooyu ñu tex pour dans un crime comme ça loolu mënul argument voilà des déclarations de criminels des prévenus pour double crime nous jël qu'en en considération ben ñaareel bi bornages de téléphone et tout ça là on n'a jamais parlé des faits mais tout ça pour nous dire que Nabou n'a jamais été là-bas heure bi crime bi loolu lay tekki de erreur bornage boobu loolu la bëgg indi ni musu fa nekk mhm. voilà mhm. kon fekk c'est ça le truc donc nous on doit démolir ça si on a des informations yoo xam ne mën na démolir information loolu duñ koy indi teg ko comme ça audition bii muy war a am loolu day daanu ci suuf c'est tout ngeen baal ma àq mhm. parce que tout à l'heure j'étais un peu énervé te waru mon, waxee noonu et tout ngeen baal ma àq si loolu mais du du jikko si man di wax ak nit ak yooyu. non loolu nice waxtaan la woon rek. man de li ma laaj nii nii <laughs> tonton Aba yow ak Walter man di may li may laajte ni nii nii est-ce que Nabou génn na. non génn na moom soxna si. est-ce que Nabou génn na. génn moom. waa génn fan. lan la koy fan. prison bi laay wax est que Nabou génn na ci prison bi.

na mu léegi la ko man copine boobu gisu ko. waaw nee l'a appelé au téléphone. woo na ko ah, ne ko génn ci live am. Euh, génn mais il faut tamit ngeen di xool. fa fa nekkoon nekkatu fa nekkatu fa. waaw mais man maa la wax lii fa mu nekkoon nekkatu fa. Sira Sira. moteur. allo. allo. allo. Aba Aba. damay damay wax damay damay damay wax damay. baal ma waxal Aba Aba. deux mille deux waaw. da dem aussi Seneweb bind na ci test bu am solo parce que les même les professeurs de l'université chaque mois am na ku ko ci contesté euh, contesté ak euh, avocat Baro bi nekk euh, Paris aussi léegi pour vous dire vrai moom bientôt ci kanam dañ koy war a convoqué mooy comme ni doon wax rek parce que liñ violé moo tax waruñu ko may liberté provisoire te defaluñ ko dugguñu ak moom ci dossier bi auditionné wuñ comme de fond parce que mooy li ma doon wax juge intérimaire du ko joxe du ko joxe parce que yaa dégg li ma la wax ensuite bu doon dañ koy jox beneen juge bu hérité ko juge boobu sax dafa war di déggante ak le juge titulaire bi nga xam ne sax moo nekk en vacances aussi comprendre nga wala comprendre ko hmm? comprendre naa maa ngi lay déglu yow rek laay déglu donc attendez que maanaam dañ koy dañ koy dañ koy révoquer daal dañ koy liberté provisoire bi moom gëm naa ne daf koy perte bientôt quoi parce waaw dañ koy kon avocat bi aussi defoon na appel il paraît que defoon na appel aussi pour. Hmm? avocat bi aussi defoon na appel il paraît que defoon na appel aussi pour. waaw peut-être bu ci ay ay preuves aussi yu lèr ci audio yi bu len nexé ngeen saisir ko mais dal fiñuy waxé ok ok d'accord donc attendez-vous connaissez, ci ay fan ci kanam dinañ parce que juge intérimaire du joxe liberté provisoire du ko joxe manam lu bari dit yu di dem vous avez parce que tamit yooyu daf ci am solo recherche s'il vous plaît demal nga lire article je lu ci bari ko comprendre parce que même article bi na sax ni euh, avocat famille Aziz Dabala bi ñoom conteste, na ko contesté décision effectivement article Sénégal b avec intérêt euh, lire après envoyer mon donc y a un, grand avocat je pense mm-hmm. euh, agrégé à la faculté des droits mm-hmm. donc mon mot, wax effectivement euh, décision

donc man man duma juriste duma juge ni rien mais su lire l'argument qui a servi à libérer la fille mais dama naan lii du waxu justice justice nous nous jëlee des décisions aussi importantes sur la base d'arguments comme ça. te xam nga lu gën a soob ci affaire bi xam ah? nga lu ci gën a soob. Hmm. waroo juge d'instruction warul sax ma liberté provisoire bégo du dossier bi entendre leen. exactement ba pare yow. amul dossier amul dara li xew nga jël ben décision ah. bu importante à son insu. amul lolu mo lay ni et malheureusement presse bi duñ ci wax amul spécialiste du droit bu nekk ci wala juriste bu nekk ci ben presse bu ñëw wax ci lolu dénigrer ñom de en grande pompe. ñi ci bari hein? bi nga affaire yi du ay làmbatu da ngay wax lu leer lu dugg ci bopp nit ñi. gis nga boo demee ci émission bi mu mujjee woon def y' a plusieurs personnes ki commentent là-bas. parce que bu doon da nga fa toog di far waroo far nit ki warul far même booy régler problème bu dee da nga prendre parti rek pare nga ci mm-hmm. da ngay gis koo xam ne fan yi dama koy gis ci télé bi muy toog di wax lu ko neex ci Aziz lu ko neex wax bu ñaaw bu ne mu koy wax famille Aziz toog di ko seetaan koo xam ne day wax loo xam ne amu ci benn preuve.

au Sénégal moo tax may wax ni fii fii fii moo tax may wax ni fii il faut pas que ñu am ay émotion wala ñu am ay kii. ay kenn fii attends c'est trop sérieux ici parce que nous tous on est exposé ici c'est trop sérieux pour qu'on laisse des gens venir ici ñu yi wax ay waxu tappale wala ay wax yu leerul ku ci waxul lu leerul que tu sois invité ou pas ñu sànni li ci suuf mu jeex ñu continue si li ñu nekk bu ñu xamul dara tamit mais mu ngi am benn ligne am ligne ñu taxaw ci parce que lolu ñi may ndam même buñu amul sax gain de cause ñun dinañ respecter parce que ligne buñu japp ne moy bu baax. te di wax fi lu am solo buñ koy dégg di dafa am solo de. voilà exactement. voilà exactement. <laughs> non non bien sûr loolu laa bëgg nit ñi xam. c'est bien sax nga invité boo xam ne day ñëwee système maanaam taxaw taxawaayu défensif duñ la wax sax ngay xuloo ngay xuloo booy seet non non non. mais xam nga fii c'est-à-dire xam nga ñiy déglu fii am na ñuy déglu si panel bi ñi ñooñu ñëpp duñu am ay famille di waxtaan ak ñoom am na ñuy dugg ci YouTube bi di ko déglu foofu mais c'est des gens yoo xam ne du toog di xalaat ni mais non mais lii c'est pas possible naka nañu mën a bàyyee kii si conditions yi mel nii. ñun nag li ñuy wax fii dafay am impact ci ñooñu moo tax luñ koy buñ koy wax dafa war a ànd ak sérieux ak benn clarté boo xam ne ni ku ko dégg da xam ni yëpp ay tappale la même bu fekkee ni télé dëkk bi yëpp lu ñuy jóg naan way na bu libéré lavé de tout nangam nangam duñ leen déglu ñun nañuy déglu parce que dinañ xam ni ñu fiy teg ñoom mosuñ ko une chose ñiy wax ñi doon xeex pour ñu génne Nabou Leye indi ay argument teg Nous avons ni non ñun information Vous mënañ fa information mais amuñu information bu baax ci nabu